maa ngi leen di gërëm di leen sant xam nga chef euh, mission FMI bi li mu wax mooy ñoom ñu ngi fi depuis de depuis deux semaines le vingt cinq avril lañ commencé benn mission di ko jeexal tey mission bi nag li ko taxoon a jóg mooy négocier ak Sénégal benn programme bu bees ci waxam nee na programme bu bees boobu daanaka d'accord nañ ci FMI ak gouvernement du Sénégal ñoom nag gërëm nañ président gërëm premier ministre parce que ñoom ñëpp recevoir nañ ko recevoir nañ mission bi démb at bërki dem mission bi nag liñ ci mën a tënk wax na ko dañu am programme bu bees boo xam ne dina def ñetti at juin 2023 bii lay tàmbali jeex juin deux mille vingt six programme bu bees boobu nag nga xam ne conclure nañ ko FMI ak gouvernement du Sénégal ci xayma xaalis bu ñu xoolee programme bi am na xaalis bu tolloog mille cent cinquante milliards de français CFA ci biir ñetti at yi loolu nag day wone rek que économie Sénégal mu ngi ci tànk yu wóor wax na nag que programme bi quatre axes la axe bu njëkk bi mooy affaire finance publique finance publique moom chaque année rek da nga koy améliorer am na ay tegtal yuñ ci joxe pour xool nu ñuy gën a améliorer gestion finance publique teg na ci aussi gouvernance financière ak transparence boo gisee ñoom ñu wax loolu dañu rafetlu yenn instrument yiñ fi président de la république teg yu mel ni OFNAC yu mel ni ay déclaration de patrimoine programme bi da koy gën a dooleel kese da koy renforcer wax nañ ko nee aussi économie Sénégal mu gën a xaw ma nuñ koy traduire ci wolof mais mun nañ jàpp rek ne bi fi Covid ñëwee président teg programme bu ñu tuddee programme de résilience économique et sociale de mille milliards loolu rek li ñuy wax ne mun nañ tënk ne ñetteelu axe bi mooy renforcer économie bi nu muy dékkoo yenn choc yi nga xam ne dafay ñëw ci réew mi mooy ñetteelu pàcc bi pàcc bu mujj bi nag mooy affaire environnement dañ ko ci yokk parce que gis nañ ne Sénégal xarañ na trop ci li muy def di fexe di ci di ci boole préservation de l'environnement lu lu am solo la boobu nag mooy bi mujj ñoom tamit wax nañ ne effectivement biñ gisee choc yi nga xam ne Sénégal amoon na ko ñu jël Covid bi jël guerre en Ukraine jël njëg yi yokk inflation bi yokk tax na ba programme yu gouvernement bi def pour que population yi bañ ko yëg yokk na endettement bi moom mu joxe chiffre endettement Sénégal 76 pour cent du PIB ma leeral ne endettement boobu mu joxe ñaari pàcc la dafa am endettement administration central ak endettement structure parapublique yi généralement réew yi buñ leen di comparer seeni endettement administration centrale la ñuy comparer boobu 68 virgule 2 pour cent la tey boo ñu doon comparer yeneen juróom-ñaari réew UEMOA nga gis seen taux d'endettement boo demee ci 76 yi juum nga da ngay dem ci 68 virgule 2 bi. boobu c'est inférieur à 70 pour cent noonu la ñuy comparer mais ñun Sénégal suñu xarante ak ANSD ak statistique yi ñu am dañ ci boole structure parapublique yi ba nga xam ne ñoom tamit seen endettement dañ ko ciy dugal te endettement boobu boo ko xoolee toll na ci presque 7,8 pour cent loolu moo koy jox 76 pour cent loolu laa leeral ma leeral tamit ne ñoom wax nañ ne. Sénégal def na subvention bu bari pour jàppale population yi tollu na ci presque mille milliards ci juste wàllu énergie maanaam électricité bi ak carburant bi ak gaz butane bi nee nañ nag loolu ñu ngi sàkku ñu koy wàññi ndànk-ndànk ba nga xam ne li nga xam ne dañ koy wàññi dina mën a dem ci yeneen lu mel ni bourse familiale yi ak yeneen programme yi nga xam ne dëkk kaw yeeg yëpp soxla nañ ko comme PUDC at yooyu léegi nag loolu moo tax ma leeral ne subvention yooyu ñu wàññi terewul que ba léegi ñu ngi continuer di supporter subvention bu am solo boo xam ne mu ngi ci budget bi pour que population yi ñu gën leen ñu continuer di leen jàppale comme ni ko président de la république santaane loolu nag ma wax ci ne tey tey malgré que yokkoon nañ njëgu gasoil bi ba léegi ku jënd gasoil litre gasoil mu ngi jar sept cent cinquante cinq gouvernement bi heure boo jëndee litre gasoil xamoon ne gouvernement bi mu ngi supporter soixante cinq francs CFA maanaam huit pour cent ma leeral ne aussi butéyu bouteille gazu six kilogrammes bi bu ñu xoolee mu ngi jar deux mille cent quatre-vingt-cinq ci loolu mun nañu wax ne gouvernement bi subventionné ko na ko bu baax su vingt-huit pour cent la maanaam bouteille gazu six kilos bu nit jënd rek gouvernement bi supporté na ci mille cent vingt-trois mooy vingt-huit pour cent ma leeral ni aussi ci wàllu électricité bu ñu xoolee xayma ménage yi nga xam ne dañu néew di doole ñu ngi toll ci un million cent cinquante six mille ménages daanaka ñooñu presque li ñuy consommer cent cinquante kilowatt heure la amul benn yokkute boo xam ne yokkute yële passé concerne na leen ñeneen yi lañ yokk te même yokk biñ def ci ñeneen ñi mun nañ jàpp ne kilowatt heure boo xam ni nit consommé na ko te bokkul te moom li muy consommé ëpp na cent cinquante kilowatt heure na jàpp ni gouvernement bi mu ngi jël en charge vingt sept francs CFA maanaam def na ci subvention vingt pour cent loolu laa bëggoon a leeral ci ci wolof